te arbitre baa ngi waajal ci ndeysaan yi cee lañu moo ñu woon ginnaaw noonu Siteu bu Songane cee lañu jàkkaar lool ndeysaan moo yem moo yem lu weex li cee ak Siteu bu Songane Gueye cee deux ak Siteu bu Siteu cee moo ñu woon ginnaaw ndeysaan cee deux ak Siteu bu Songane Gueye arbitre ba sifflé na ñoom ñaar ña ngay léewatoo ndeysaan Jack Soures Slim Production moo ñu fi woo tey ndeysaan di le 22 janvier Siteu na léegi ndeysaan Siteu mën na léegi ñoom ñaar g ak Siteu bu Songane Gueye na ngay demee wet ñoom ñaar ñoom ñaar ña ngay bëree ña ngay def ñoom ñaar G2 jàpp na ko Siteu mu déclenché na mot ñoom ñaar ñu koy wër ndombo te daan na g am déet G2 daan na Siteu kat